لا تخل دال بباخ دك دك انا جو جندي نيبور آه، آه، تامكي نيوكو جيري نيو واي سيني توار رك مو في نك موي موي مو مو مو مو مو مو مو جيبلنتي كوي جيبلنتي مو مو جيبلنتي يو كين جيبلنتو فين كين جيبلنتو كين دك بي سيني توار رك جيبلنتي آه. تي مو تي تي تي تي تي نودف جسنا كلودف خمنكو Thank you. kon na sa xel daal bu baax waaw te nga continuer nekk ci li nga nekkoon waaw léegi de góorgóorlu ci yéen ji nga am ci réew mi góorgóorlu ci rek te te te te te ci Sëñ Tuubaa min mi mi mi mi la tax a jóg loo ko gën a yëg mu gën laa yitteel mu ëppal la njariñ tey ëllëg loolu rek moo ci am solo na sa xel daal bu baax dëkk bi sëñ Tuubaa rek ngay jëflante jëflante woo fa kenn joxol mi ñu toog nag dal